ginnaaw ba na sant yàlla jël ci yunt bi ku ci nekk ñu ngi lay nuyu sa tur ak sant tey nag ñu dalal ndaanaan woo xamante ni nii ci réew mi kenn dootu ko présenté muy Abou Bilal ñu gën koo xamee ci Kouthia Samba Sine Kouthia maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay Thiamas di gërëm ci kontaan bi di gërëm tamit ci dalal bi ma dalal ci aussi euh, li nga bëgg ibbi pour nit ñi mën a xam kumpa bi nga xam ne xëy na xamu nañ ko ci xamuñu koon te journal laas bi leeral ko nga sukkandiku ci pour laaj ma ci jërëjëf kooku ngeen dégg noonu mooy Abou Bilal ñu gën ko xamee ci Kouthia Samba Sine di kenn koo xamante ni nii nekk groupe Futurs Médias di kenn koo xamante ni nii kenn dootu ko présenté ci réew mi mais Kouthia tey dañoo gis tey ba nu yeewoo fajar gis journal bi nga xam ne moom laas ñu def la à la une lii moom wax dëgg yàlla ne fànk kenn du ko jeex Kouthia nag tey ñu bëggoon koo jël journal bi lem ko nànk teg ko nii mhm. lii njëkk a waxtaane mooy Kouthia depuis quelque temps gis na la yaa ci kaw chaîne bi di bégal doomu aadama yi waaw Kouthia lan moo la pousse ci loolu. Thiamas boo ko nattee quatre vingt neuf ba quatre ba deux mille dix neuf. fanweeri at la. muy trente ans. fanweeri at yoo xam ne yàlla mii suñu borom bàyyi na ma ak sénégalais yi. événement naar yi fi amoon quatre vingt neuf. ci la yàlla feeñal. ba deux mille dix neuf muy trente de carrière. ans de carrière yooyu. li koy màndargaal mooy dama dem aéroport di dem États-Unis tasante ak benn paa ci buntu aéroport bi. Mhm. mu téye sama loxo ne ma kaay ma ñëw mun ne ma yow de dama lay wax benn kisa ma ne ko luy kisa mun ne ma dama lay jox loo xam ne ci taxawaay bi nii nga jàngat ci ma ne ko mooy lan mu ne man bëggal nga ma man. Mhm. ba sama doom ji juddu mooy sama taaw. juddu fekke ngay def comédie nga bëggal ko ba mu am doom doom jaa ngi nii. macha allah dafa ñëwoon vacances. macha maanaam bëggal naa góor gi. bëggal taawam bëggal taaw bi nga xam ne am na doom ba doom ji nee na ma su déggee mimi ngi ñëw dafay kontaan parce que moom mimi la tudd kon trois générations yoo xam ne abu Bilal boole na leen bégal ci benn taxawaay muy pappa taaw ak sët jërëjëf kooku 30 ans de carrière kooku ngeen dégg noonu mooy Abou Bilal ñu gën ko xamee ci Kouthia def 30 ans de carrière mais Kouthia duna seetlu ni wax dëgg yàlla Sénégal wax dëgg yàlla heure bu ñu soxlaa nga wax nga wax. ñaareel ba gis nañ sa diggante ak homme politique yi. gis nañ sa diggante kilifa aada yi gis nañ non seulement sa diggante ak mbokk artistes yi. balaa ñoo jël ci yooyu yëpp dañuy jéem xool sa diggante ak mbokk artistes yi. waaw nan ko sa taxawaay ba sa diggante ak ñoom. artiste boo ko bëggee jàppale damay xalaat man fi ma jaar ba egsi fii. Mhm. Thiamas Moïse Ambroise Gomis moo ma njëkk gëm ne man am na lu ne ci man. Moïse Ambroise Gomis ba ma ñëwee pour dugg télévision nationale bu RTS dafa jafe woon. Mhm. temps yooyu génn télé dafa nekk loo xam ne. boo ko xasee ba def sax àddina bi ñëpp dañu lay naw. dëgg la boobu télé yombul nii. ba ma jaaree ci Ambroise Gomis benn émission bu ñu naan génération 80. ma nga commencé woon 85 86 87 88 89. ba 89 boobu la émission boobu tëj. Mhm. Ambroise Gomis gëm ne. man artiste laa mu daal may yombalal loolu. Mhm. may dugg RTS di génn di dugg RTS di génn mu yomb ci man. Mhm. xol bu rafet boo mu amoon ba fexe ba àddina bi yëpp xam ma ci jamono jooju. Mhm. am na benn vidéo boo xam ne fan yii passé yaa ngi koy gis ci internet bi. may toppandoo yor bal nii bokk ko. sol short di toppandoo Aj Mansour ak Mawade Wade. ak maître Babacar Niang xale yi xamuñu ko tey. maître Babacar Niang benn politicien la boo xam ne moom ma dikkee ñaa ñoo nuroon baat. mais dafa génn àdduna moo yoroon parti pour la libération du peuple. du peuple kooku jamono jooju moo nekkoon politicien bi nga xam ne soo ko toppandoo Sénégal ñëpp dañu lay bëgg ndax moom ci boppam dafa xorom woon yal na ko yàlla xare àjjana. jafe boobu nga xam ne yomb boobu nga xam ne amoon naa ko moo tax tey ba ma nekkee ca télé bëgg gis ay artistes yoo xam ne dañu war a fës. ma delloo mboy ca mboy boy ba buum ca mboy mboy ba fexe ba dimbali ñoo xam ne tey am nañu capacité am nañu kattan mën nañu ñu génn leen visiter ma fay naar bi xoromam ca la nga xam ne embrase gonu jabal jërëjëf jërëjëf ci Kouthia kàddu yu rafet yooyu nga wax wax nga sa diggante ak bi léegi léegi waaye dana am beneen taxaw jàngat am taxaw seetlu seetlu bi mu am mooy sa diggante kilifa diine yi gis nañu kër ëttu kër kilifa diine yëpp kër gu ci nekk am nga ci accès. waaw te koo ci gis gis nañu sa émission balaa ngay commencé di nga kilifa diine yi ne ci réew mi yëpp dinga nga toog waxtaan gërëm leen sant leen ñaanal leen yàlla. sa diggante kilifa diine yi lan la. waaw parce que dama gis ne kilifa diine yi ay nitu yàlla nañ ñoo xam ne balaa ma doon am fit di leen tudd ku ma ci dem ziare da ngay muuñ. bëkk néeg bi ne ah sama sëriñ de bu wéetoo yow lay bànn yow lay xool. Mm-hmm. am ñoo xam ne may dem ñu naan kàccoor baa ngi nii am mhm. ñoo xam ne naan saay-saay bi am ñoo mhm. xam ne naan ah kii day day bëggal am ñoo xam ne dañ lay génnal kisa ne la Seydina Mohamed paix et sur lui amoon na benn kucaam boo xam ne bu euh, Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam paix sur lui musaan xaw tuuti rek jàpp mer tuuti rek moom nañuy fexe ba wooyu ko bu taxawee rek wax rek te buy wax nag day wax wax yoo xam ne day mel ne kuy gaarawaale mhm. naan ay ku mer yaa xam ak waaye lii kii def ay genre taasam ba yonent bi muuñ moom rek moo ko doon dellu si ba keroog ñu may nettali ci kisa kilifa mag moo ko wax bi bi comédien boobu maanaam Kouthia boobu nga xam ne moo nekkoon Kouthia yonent bi nelawee ñu koy suul yonent bi fay ree ñu ne quoi Seydina Mohamed yow yaa suul nit mu ne kii de wanuma ko ginnaaw sax mu ngi xuloo malaaka yi naa leen te ngeen maa yóbbu te suñu sama xarit mu ngi nii di ma suul foo ma jëmee daf leen ma nag xam ngeen ne àddina laa yeewoo moo war a ne comédien nit koo xam ne day ree yàgg nag kilifa diine mhm. te jamono yonante ba te li may wax nii leer nañ la kon ñun dañoo war a delloo njukkal parce que koo xam ne amul jotu kenn mhm. yàlla rek la am jotam bu bàyyee dem bay bàyyi xel ci yow mhm. da nga war a sant yàlla parce que moom fu muy seetaanee ak la muy gis bokkul ak fi doomu aadama simple bi di seetaane parce que ñoom du ñu ay citoyen simple ñoom yàlla da leen mooñaale ci loo xam ne ñoom rek ak suñu diggante suñu borom ñoom ñoo ko am ñun amuñu ko jërëjëf Kouthia leeral na ko léegi léegi diggante leeral na léegi léegi diggante moom kilifa di nii waaye Kouthia duna gis ci artiste comédien boo xamante ni nga am benn engagement gis ci yow loo xamante ni nii wax dëgg yàlla gisaguñ ko ci benn artiste comédien boo xamante ni fii ci Sénégal mais kenn koo xamante ni daa gëm boppam ne man kat waxuma maire waxalu de mais damaa bëgg a doon président de la république waaw loolu dañ ko jàppale ay kaf mm-hmm. mais dem naa ba làmbatu li ma bëggoon xam-xam naa ko li ne sama xel ne man rek maa ko xam ak yàlla bu buñ ko jàppee kaf est-ce que Kouthia kaf la ko jàppee woon mhm. am na nattuwaay bu mu doon natt Sénégalais yi mhm. am naa ci résultat mhm. xam naa fi ma taxaw tey ñaan naa yàlla ëllëg bokk ci ñi nga xam ne dañuy décider ci réew mi parce que assemblée nationale kat ña fa nekk di tàccoo xeex a xuloo bu dee xuloo la maa ko dàq ah. bu dee tàccu la maa leen ko dàq ah bu dee xeex la maa leen ëpp fit maa leen dàq xeex ah waaye yooyu yëpp nag man du ma yóbbu assemblée xam nga assemblée ñaata nit moo la fa yóbbu. dix mille voix moo la fa yóbbu. dix mille voix nag Kouthia am na lu ëpp dix mille voix. ñi ma sopp ci réew mi Sénégal bu ñu leen dix millions jàppal ne mun naa ne neuf millions yëpp maa ngi seen biir xol ndax kenn wanu ma saafara kon tey ñun war nañu war am ku ñu toogal assemblée nationale loi yi nga xam ne dañ koy voté jëm ci culture comédien bi war a artiste bi ci boppam moo war a jiitu Youssou Ndour sama xarit mooy sama patron waaye bu njëkkee woon assemblée nekk député dana ma neex trop parce que boobaa mën naa taxaw tey ne culture bi nii at nii nii ak na le ah Omar Pène waroon na ko nekk Ismaël Lo war na ko nekk parce que 10 000 voix mooy 10 euh, 000 voix mooy tax nga nekk député te ñoom dañuy génn CD jaay lu ëpp 10 000 CD 20 000 CD 50 000 CD Wally nii bu ko neexoon nekk député parce que bu defoon campagne ne dama soxla dix mille voix dana am dix mille fans wala téeméeri dix mille fans yoo xam ne danañ dugg ak moom assemblée ah ah il faut que artistes yi gëm seen bopp te bañ a wékku yi bu kenn nanguti di ànd ak benn politicien di ko wayal di ko indi mbooloo mu won la ginnaaw dem assemblée après faata du la fàtte gëm ne war ngeen mën a nekk ñoo xam ne dañu war a toog assemblée défendre seen bopp réew mi war naa fi mën a nekk président parce que ñi ko jiite tey tey tey tey tey tey ëpp ñu njàng nag du dem ba ay député taglu ko njàng mooy njàngatu réew mi parce que analyse politique bi nga xam ne ñun moom la ñuy def caamaas lu bëri fii dañ ko fi wax nit ñu yaakaar ne Macky Sall ko wax déedéet ñun ñoo koy xalaat di ko wax ah des fois ñu invité Madické fii mu wax nga ne ah lii Madické ko wax fekk Kouthia wax loolu dafa solu mbubbu Madické waaye xel ba la Kouthia di wax moo ko créel boppam Madické waxu ci dara xëy na da ciy cof rek njàmbaat si nit dégg ko daa dee xam li xew nga daal loolu mooy analyse politique mm-hmm. ku mun a analyser nag politiquement li xew ci réew mi jàngat ko war ngaa mën a toog ci réew mi nag ci bànqaas yu mag président bu nekkee nante Macky bu nekkee nante la ñu mel ne Kouthia ak ñiy def analyse politique daf leen war a xëcc teg leen seen kanam seen wet ñu koy conseillé parce que ñooy proximité ñoo xam li xew ñoo koy génne mais boo nekkul nante da ngay jàpp ne sa noon la fekk du sa noonu daf lay xamal dëgg la lu kooku ngeen gis noonu ma bëggoon ngeen tàccalatul ma ko bu baax a baax mooy Samba Sine question bi ma doon tëjee yeggali nga ko léegi léegi mooy sa diggante ak homme politique yi. waaye lenn rek laa bëggoon nga leeral ko sa diggante ak sénégalais yi sa diggante ak Futurs Médias. waaw sama diggante ak Futurs Médias moom laay tëjee tey loolu su ma koy wax sax normalement waruma ko wax nii ak ak ak ak dama war a tëb parce que il faut que sénégalais yi xam ne qu'on le veut ou non Kouthia mooy maskotu TFM. maskot mooy ku xamul mascotte mooy moo maanaam ñaari équipe bu ñuy fubal mhm. li ñu leen di xàmmee mandarga bi tax ñu xàmme leen mhm. senegal ci gaynde lañ ko xàmmee mhm. yeneen dëkk yi ñu xàmmee leen ci jën ak war a leneen TFM tey maskot bi mooy ku Kouthia xam lu tax fekk moom fi koy tàmbale de waaye ba may jugee wal fajër di ñëw TFM amul maa yenu drapo bi daw ak moom ba almadi taxaw fii ne TFM au senegal dëgg maa jël karti yi ànd ak Birane Ndour mii dem Europe jaay maa jël carte dem ànd ak sama patron Youssou Ndour États-Unis valoriser ko mhm. bokk naa ci ñi nga xam ne xar naa seen tànk tubay fexe ba nit ki bu 6 heures jotee mu bàyyi xel ci télé bi man maa fexe ba dugal loo xam ne ci biir télé bi waxuma côté koom-koom de parce que du ko bàkkoo mhm. fexe naa ba xiir nit ñi ci tele bi mhm. ci kaw politique de communication bu rafet boo xam ne nit ñëpp ñu ngi bàyyi xel tele bi ndax ca la nga cay wax buñ ci gisee seen bopp fekk si la équipe nag day am capitaine xëccoo ma capitaine de mais télé bii maay maskotu télé bi jërëjëf te maay musa doon maskotu télé bi te télé bi bu dee guy la du ma ci reen du ma ci buy du ma ci branche maay guy xam nga lu tax parce que dama ko gëm ah dëgg la te loolu moo am ndax borom télé bi ci boppam moo ma def ci xolam dëgg mu joxe ordre ah waxtaan bi gën naa neex Bamba Fall Bamba Fall Bamba Fall Bamba Fall Bamba Fall Bamba jërëjëf da nga fekk journaliste bi di laajte ci émission Kouthia Show yaa ngi en direct jërëjëf waaw alhamdulilah rabbil alamin tungu mi di teew di nataal moo tax bay wax day am seede fi ñu koy waxee ba ci digg ba sur le maire boo xamante ni kenn dootu ko présenté ci réew mi di Bamba Fall yegg si Bamba tey ñu gis soleil bii nga xamante ni nii mooy laas ñu gis ci Abou Bilal Kouthia ñu def ko à la une nun ko jàngatee loolu Kouthia mérite na lépp à la une man bi may xam Kouthia boobu tout tànk la mu ngi ànd ak Dame Mbengue di def dàll yi waaw boobu chez Roger laa ko daan fekk ci Blaise Diagne bi li may wax ëpp na vingt cinq ans ci gannaaw kon ku ko xam la donc je pense que lu ne da ko daf ko def comme sacrifice ci réew mi man mii sa bala may tëdd guddi gi minuit moom laay seetaan ba mu jeex parce que Kouthia da lay joxaale information bi nga xam ne jotoo koo xool li sëñ Mbaye Sy Mansour waxoon ba pare boole ci un peu d'humour mais nag ici laar ne paie pas son nom Kouthia fi ñu ko war a teg tegaguñ ko fi te lañ ko war a def ci moom defaguñ ko fa ni ma def ba tuddee alaaji Mansour mbay mbedd mi nga xam ni moo jëm ci centenaire bi ci Auchan bi kii mérité na ay décoration ay titre may ñaan askan bi yëpp ñu bàyyi ko xel te xam ne àddunaam yëpp daf ko def pour bànneexu ñun ñi ñun ñëpp lañu ko may doole ndax équipe am bi ku ne gis ci sa bopp Kouthia Kouthia sama couleur ak moom mhm. di wax tamit nit ku jàmbaar la dëgg la fi mu jaar ba doon li mu jaar ci parcours am légende légende la ci mhm. monument la ci parce que da koo xare da koo gëm ba toll si nekk tamit nit xam ne day dox ci jàmm barke Demba Ndiaye wax na wax ju rafet boo xam ne adduna bi yëpp ñu ngi ko rafet laa ilaha illallah bamba tànk bi nga jël pour dox jubalee askan jubalee militant parti socialiste yëpp lii ngay mbëbët yal na ko yàlla def yal na jaar sa loxo ba sotti ndax yàmm jàmm ko ciy woote di ko dox billahi yàlla dina la fekk si li ne sa xol na xam nañ ko avant ngay ñëw benn waaye ndaw si dafay woy ne luy sa yoon ci coow loo xam ne nit ñaa koy wax luy sa yoon sa patience sa ngëm nit ngi di wax rek ngay muñ di joxe résultat Bamba yaa baax yaa gën yow da nga sa turandoo ci jikko yoo xam ne defar askan bi yow yaay un politicien boo xam ne tu n'as pas honte dox nii ci biir Médina sans garde corps fekk naa la nga taxaw di xool ay travaux dalaas nga koy def naan teg leen ko nii ranger leen ko nii loolu yombul yow yal na la yàlla fay li nga xam ne moo ne sa xol yal na la yàlla jox kàttan te fii nga toog nii maa ngi la koy wax yàlla dina yëkkati sa maqaama ci lu kawe sa ndox. jërëjëf ndax plateau bi di plateau ngeen yal na yàlla dafa jàng. jërëjëf yal na yàlla dafa bi na ko jàngalal xale yi. dañ koy jàngal rek ko. ah mais ki ko ngi wële moo <laughs>